combat bi arbitre bi sifflé na Franc ak Serigne Ndiaye numéro 2 Serigne Ndiaye moo ngemboo ngemb lu vert li moom ngeen jàkkaar lool saison bi passé avant Covid bi ñoom ñaar mos ñoo laale ñoom ñaar ku daan sa ku nekk daan sa morom muy 1 ak Franc waaye fii ci arène nationale. Franc moo fi mujjee am ndam ci kaw Serigne Ndiaye ñu dellu waat xool ñoom ñaar seen ñaareel daje fii ci arène nationale fu muy mujjee dox ci diggante Serigne Ndiaye numéro 2 bu Faas ak Emine François Gomis mu njàmbaar Wrestling Academy ndeysaan ñu ngi noonu ñoom ñaar ñu ngi leewaatoo di xoolante ci bët Serigne ak Franc Franc jàpp na ci bopp bi ndeysaan moo la woon tey compétition bi ala daw me na ndax ñoom ñaar ku daan tas yaakaar ngay am final ndeysaan dox ci diggante Emine François Gomis ak ki nga xamante ni mooy Serigne Ndiaye numéro 2 Franc gàdd na ko jàpp na gàllaajaa ngay dagg Franc ngay dagg gàllaaj yi sànni ma ngay dagg gàllaaj bi di sànni Ndeysaan Franc dagg na gaalaaji Serigne Ndiaye sànni Serigne taxaw na jodd Serigne Ndiaye taxawaay bi baax na. Ndeysaan Njool ak Ndaama la ñoom ñaar Ndaama saa yu bëreeg Njool da naan Njool mi sàmmal say tànk ndax lu mu guddi guddi ci sa tànk yi la jëm. ñu ngi laale ñoom ñaar Serigne Franc fàqan na ko Serigne Ndiaye bañ na Franc ñoom ñaar Serigne Ndiaye Franc bëtt mbaadu da daan dina wër ndomba Franc wër na ko ndomba wër na ko ndomba Serigne Ndiaye génn na la ilaha illallah la ilaha illallah oh Franc jàppaat na ko du ci génn Serigne Ndiaye doo Franc daan na ko daan na Serigne Ndiaye ndeysaan daan na daan na